mu dugg ci julli te tàmbalee ko ci wax waxtu julli yi mën na loo njëkk a xamle ne waxtu julli yi yàlla def na ci ak jàpp na lool jamono yi toll daanaka foo mën di nekk ci àdduna bi rek du jar ngay xool tegtal ya nga xam ne ca leen daan xamee waxtu jot na wala jotut jeex na wala jeexut mën nañ laa jox waxtu julli yi nga am ko ci at mi yépp fukki weer ak ñaar bis boo toll xam julli gu ne fu waxtoom tàmbalee ak fa morom ma ca des di tàmbalee dafa mel ni nag ku nekk fii mbaa fu ni soree ndakaaru bu dee jéem a sukkandikoo ci waxtu yi waa ndakaaru yi joxe mën na koo indil ak julli jot mu yeex koo julli lool ba ñàkk tuyaaba yi bu julli woon ca njëlbeen waxtu ci misaal tisbaar léeg-léeg dana am jamono yoo xam ne benn waxtu bu tegalee kaar rek daanaka tisbaar daal jot fii kooku nag bu nee day topp ndakaaru dem ba ñaari waxtu manki kaar mbaa mu ne waa ndakaaru lañuy julli ñaari waxtu mu ne moom day xaar ba ñaari waxtu kon waxtu wa dana jot lu yàgg yàgg yàgg mu door a julli taxul sax nag mu def lu araam ndax li fekk génne woo julli gi ca muxtaar ma rek bakkaar amu ca waaye nag tuyaa bay teel a julli ca ba waxtu way jot da koy raw julli gee nag moom moom lañu seetlu ne kuy roy ci waa ndakaaru saye boo rekk julli gee moom mu bañ leen ca roy tisbaar nee nañu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njëkk a julli ci kaw suuf gannaaw ba mu bàyyi ko ci rañaan ma ba suñ boroom digal ko julli juróom yonent bi ba mu rañaanee ba digal ko julli juróom teg na ci at door a gàddaay at moomu yépp nag julli yi matuñu woon ñeent timis daa nekkoon ci ñett yi ci des nekk ci ñaar ñaar ba mu gàddaayee nag ba dem Madina lañ ko digal mu mottali yenn julli yi ñeent muy tisbaar takkusaan gee timis ñu bàyyi ko ci ñett suba it ñu bàyyi ko ci ñaar rekk te mu tolloogoon nag mooy wax la waxtu tisbaar ak fan la tàmbalee ak fan la yem bu dee ci yoonu alimaam Malik nag julli gu ne dañ koy sàkkal ñaari waxtu waxtu wu ñu tuddee muxtaar nga xam ne su fekkee amoo lenn ngànt balaa muxtaar may jeex war nga ci julli boo bàyyee ba muxtaar ma jeex nga dooru julli da nga am bakkaar bu rëy rëy bu fekkee ne nag ngànt tax te dana wax ngàntee doo ca am bakkaar ak waxtu wu ñu tuddee ak daroor yi daroor yi mooy waxtu wa nga xam ne ñu amee ngànt ñoo cee julli te buñ ca jullee duñ am bakkaar tisbaar na kon muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bu jant ni ñuy xàmmee jant bu rëcc mooy boo xëyee suba jëmm ju ne ab takk ndeeram day féete soowu te lu jant bi gën di yëkkatiku rek takk ndeer boobu gën di wàññiku bu jant bi yëkkatikoo nag ba àgg ci fa mën a yem ci ak yëkkatiku nga xam ne la mu weesu ak la mu dëgmal ñoo yemoo képp li ci ëpp takk ndeer boobu doon wàññiku du jeex tàkk day des la muy des mën naa bari mën naa bañ a bari bu jant bi bàyyikoo foofee nag rëcc jëm ci fa muy soye ji loolu la ñuy wax jant bi rëcc na te su boobaa takk ndeer sa desoon day yokku nag tàlli jëm penku ndegam takk ndeer soosee nag tàlli na jëm penku nag foofu la ñuy tàmbalee muxtaarum tisbaar ne muxtaaru tisbaar fii la tàmbalee su takk ndeer bi guddee ne boroom takk ndeer ba te boole woo ca na keppaar sa tollu woon ba tisbaar di jot kon muxtaarum tisbaar foofa la yem loolu la ñuy tuddee alqaamatu al ula su ko defee nag muxtaarum takkusaan tàmbalee foofa fa muxtaarum tisbaar yem te nga dégg ko léegi fa la muxtaarum takkusaan tàmbalee daroo riw tisbaar itam tàmbalee fa lenn lu ne waxtu tisbaar di jot lenn lu ne mooy gën a gudd ab takk ndeer lenn lu ne mooy gën a gudd ab takk ndeeram lu mën doon nag boo demee ba boo nattee takk ndeer ba mu gudde ne boroom takk ndeer bi te konte waale woo ci na takk ndeer ba tollu woon ba tisbaar di jot xamal ne kon muxtaarum tisbaar jeex na takkusaan nag tàmbalee foofa bu muxtaarum takkusaan tàmbalee foofa ma nga yemi ci bu suuf si gelee lim tuddee isfiraar gel gi mu wax gel mooy bu takkusaan yi suuf jotee nga xam ne boo dee xool naaj wi du weexati day xongu ndax takkusaan yi suuf jot na jant baa ngi bëgg a so loolu moo tudd gelu suuf si foofu la muxtaarum takkusaan yem foofu muxtaarum takkusaan yem fi la daroori yowm di tàmbalee ànd ak daroori yow tisbaar ñu ànd di ànd ba jant bi so wala nga ne ñu ànd di ànd ba la des ci digganteeg jant bi so genn julli moo fa xaj ñu moomale ko takkusaan bàyyi tisbaar ba tey buñ bëggee xamle fa muxtaarum takkusaan yam daañu wax ne mooy bu ñu demee ba takk ndeer bi ñaar ca boroom takk ndeer ba nga xam ne ba takk ndeer bi guddee ne boroom takk ndeer ba moom lañ tudde woon alqaamatu al ula suñu demee nag ba takk ndeer bi ñaar ca boroom takk ndeer bi daañu ko tudde alqaamatu attaaniyatu man ngaa takk ne nit ku ne bu dee ci xasabu boppam ñeenti xasabam mooy tolloo ko guddaayam bu dee ci ndëgguy boppam juróom-yaari ndëggu mooy tolloo ko guddaayam fa muxtaarum tisbaar yam fa la takkusaan moom tàmbalee takkusaan nag mooyam ci isfiraar gel gi mu wax gel mooy bu takkusaan yi suuf jotee nga xam ne boo dee xool naaj wi du weexati day xongu ndax takkusaan yi suuf jot na jant baa ngi bëgg a so loolu moo tudd gelu suuf si foofu la muxtaarum takkusaan yem foofu muxtaarum takkusaan yem fi la daroori yowm di tàmbalee ànd ak daroori yow tisbaar ñu ànd di ànd ba jant bi so wala nga ne ñu ànd di ànd ba la des ci digganteeg jant bi so genn julli moo fa xaj ñu moomale ko takkusaan bàyyi tisbaar daa wax ne tisbaar ak takkusaan am nañu bokkaale ci waxtu am nañu bokkaale ci waxtu mooy bu dee jamono yoo xam ne tukki woo nga xam ne julli yi dañ koy matal ñoom ñaar daañu bokk ci waxtu lu tolloog loo mën a jullee ñeenti ràkka bu dee waxtu woo xam ne da ngay tukki na nga xam ne ñu wàññi julli yi yi matoon ñeent ba mat ñaar kon tisbaar takkusaan daañu bokkaale ci waxtu lu tolloog diir boo mën a jullee ñaari rakka lañu wutee nag mooy lu tolloog foo mën a jullee ñeent rakka wala lu tolloog foo mën a jullee ñaari rakka buñ ne moom lañ bokkaale ci waxtu ana fu ñu ko bokkaalee te lañu wute am na ñu ne dañ ko bokkaale ci mujjug muxtaarum tisbaar maanaam fa muxtaarum tisbaar yam boo demee ba mu des ñeent ràkka ci bu fekkee tukkiwoo wala mu des ñaari ràkka foofa la tisbaar ak takkusaan bokkaale waxtu boo toppee jooju wax nag soo bàyyee ba tisbaar la des ci muxtaaram doon loo mën a jullee ñeent ràkk nga dal di gaaw julli takkusaan xam nga takkusaan jotagut boo gaawee julli takkusaan du tee takkusaan ja wér ndax dangaa fekk waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga jullee ko ca bu fekkoon tukki la nga bàyyi ba muxtaarum tisbaar des loo mën a jullee ñaari ràkk nga dal di gaaw julli takkusaan xam nga takkusaan jotagut du tee takkusaan ji wér ndax dangaa fekk waxtu ñu bokk ñoom ñaar nga jullee ko ca loolu mooy jenn wax ji jenn wax ji dane ci njëlbéenu muxtaarum takkusaan ca lañu bokkaalee lu tolloog foo mën a jullee ñeent rakk wala lu tolloog loo mën a jullee ñaari rakk bu dee loolu nag kon soo yeexe woon tisbaar ci sag tey ba muxtaarum tisbaar lépp jeex muxtaarum takkusaan tàmbali nga daal di gaaw julli tisbaar koyit doo am bakkaar ndax danga yeexe rekk tisbaar ba ci waxtu wa nga xam ne moom la bokk ak takkusaan nga xam ne nam doone waxtu takkusaan noonu la ko doone waxtoo moom it nga julli ko ca nga xam ne kon su fekkee tukki woo nga tey ko tisbaar jot nga bàyyee bàyyi ba takkusaan di door a jot nga daldi gaaw julli tisbaar du tax ñu wax ne yaaxe nga tisbaar ba muxtaaram jàll da nga am bakkaar déedéet doo am déedéet doo am bakkaar ndax da nga fekk waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga julli ca tisbaar bu fekkee tukki la itam ngay wàññi julli tisbaar jot nga tey ko yéexee ko yéexee ko ba takkusaan di door a jot nga gaaw julli ko moom tisbaar ñaari rakka ci njëlbeen takkusaan boo toppee jooju wax doo am bakkaar ndax danga bàyyi ba ci waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga gaaw julli ko ca boo bëggee takk li nga weesu ngay wax ne muxtaarum tisbaar mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bàyyi ko ci digg asamaan te wax nanu la na nga koy xàmmee dana dema dem nag ba lenn lu ne boo nattee ab takk ndeeram mu gudde ne moom loolu la ñuy tuddee alqaamatu al ula foofee muxtaaram yam nag mooy gi takk ndeer tolloog boroom takk ndeer ba wala muxtaarum takkusaan di tàmbalee muxtaarum takkusaan bu la neexee ne mi ngi yem ci buñ demee ba suuf si gel maanaam naaj wi wéexatut dafa xaw a xong xajant bi dafa jëm ci soo la neex itam ne muxtaarum takkusaan mu ngi yem ci soo demee ba jenn jëmm ju ne boo nattee takk ndeeram mu ñaar ca ko takk ndeer bi ñaar ca jëmm ja loo ci wax rek tegtal la ci jeexuk muxtaarum takkusaan ku ci ne ci ñoom ñaar nag fa muxtaaram yam fala daroor yoom di tàmbalee ba jant bi so nga bañ a fàtte ne bu ñu nee ñoom ñaar tisbaar takkusaan dañuy bokk ànd ci daroor yi ba jant bi so bu ñu tolloo ci la des ci waxtu ñu mën caa julli genn julli dañ koy moomale takkusaan bàyyi tisbaar timis muxtaaram mi ngi tàmbalee ci fekk jant bi soyee la wóoleen jant bi sono rek amoo ci nattable foofa la muxtaaru timis tàmbalee dañu wax ni moom nag muxtaaram dafa gàtt am na ñu koy tolloole ci su jant bi soyee boo fi toogee diir boo xam ne laab sol ay yére jublu xibla julli ñetti rakk boo fi toogee diir bu toll noonu rek muxtaaram dal nay jeex am ñu ne muxtaaram kay mën nga koo xàmmee ci bu jant bi soyee daal fa la tàmbalee dana dema dem nag ba li ñuy wax shafaq raaf shafaq mooy xong-xong yi nga xam ne mooy des fi jant bi soye woon xong-xong yooyu moo tudd shafaq bu demee ba raaf ba gisatoo ko nag foofa la muxtaarum timis yem bu ko defee génn ak moom tàmbalee foofa fa timis yemoon muy bu xong-xong yooyu raafee fa la gee di tàmbalee dama dem nag ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj ba war a jeex bi ñuy guddi gi moo tàmbalee ci fi jant bi soye mooy fi nodde timis ba fañ war a nodde salaatu diggante boobu rek la ñu tudde guddi gi saa yu ne boo ko defee ñetti xaaj fu xaaj bu jëkk bi yam rek xamal ne fala muxtaarum géeyam baroor yoom tàmbalee foofu nag ba fajar fenk kon bi nga waxee timis fa muxtaaram tàmbalee ba fa mu yem ak bi nga waxee gee fa muxtaaram tàmbalee ba fa mu yem jàppal ne ku ci ne fa muxtaaram yem rek la fa dalee ba fajar fenk mi ngi bokk ci baroori yoom xanaa rek nga baamu foofu ne buñ demee ba suñ digganteeg fajar genn julli xaj fa dañ koy moomale gee ñu mujj bàyyi timis suba muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu fajar fenkee béréb bi nga xam ne fi la jant bi war a fenke bu jant bi dee ñëw ak leeram day tàmbalee feeñ foofa leer googu bu feeñee ba tasaaroo ba matale gox bi kon jullik fajar bu jullik suba jot na foofu la muxtaar bu suba tàmbalee dana dema dem nag ba bët di bëgg a set ba àgg ci boo gisee nit te muurul kanamam nga xàmmee ko ndegam fekkan na nga xam ko foofee bët di sete ba boo xoolee nit xàmmee kanamam fa la daroor yu suba tàmbalee ba jant bi fenk jooju wax moo gën a siiw ci yoonu Malik daa am na ñu wax ne suba muxtaar rekk la am waaye amul daroor yi bu dee ci ñoom bu fajar xaree rekk fa la muxtaaru suba tàmbalee waaye day yéey ba jant bi fenk benn yoon amul ci ñoom teqale muxtaar ak daroor yi waaye saye boo jàpp wax ju jëkk ji sàkkal ko muxtaar sàkkal ko daroor yi booy sikki sàkk nag waxtu sàngam jot naam jotut bul julli na nga bàyyi ba am ca lu la wóor a wóor mbaa boog sa njortu dëgër lool ci ne waxtu julli wa jot na booy sikki sàkk maanaam nattable rekk yem ci julli gi jot naam jotut boo jullee itam julli googu du baax boo julli woon ba sëlmal laaj ko amee montar mu wax la lu la won ne la dangay julli fekkan na mu jotit julli nga ko julli woon moom du baax ndax ba nga koy julli da nga doon sikki sàkk rek ba xam jot naam jotut